yéen ñi journalistes yi yéenay tax ñu yéen yéenay tax ñu fës ay tax suba ñu jot li ñuy wax tey ji parce que yéen a tax ñu leen ci gërëm di leen sant yéen ñëpp ñu fi ñëw nii di liggéey mais di accompagner tamit livre bi pour ñu gën ko wasaare waaw amuñu seen fay aw musuñu amuñu seen gërëm ñu leen di delloo njukkal bindkat ñu xarañ la su ñu leen dajalee c'était pour que ñu waxtaan ci livre bi du présentation rek xam nga soo neef jëlee benn livre nga ne da koy présenté day day day day cóol moom rek lay doon te souvent day nekk ay ay ay ay kii mais fii dama jël ay ñi nga xam ne ay borom xam-xam la ñu xool livre yi saytu gise kenn ki nee na musul xam auteur bi ñu saytu ko pour wax ne livre yi baax nañu ñu xam ne lu ñu joxee li baax na pour que ñeneen ñi mun a am sañ sa mun a jëm jënd ji ko mais baax na dafa am doole soo gisee tey ji lu ñuy bind lii ñëpp a ngi bind suñu politiciens yi sax ñu ngi bind euh, maa ngi remercier Cheikh Bamba Dièye bu mu ñëw parce que honorable bàyyi na temps ñëw ñu koy gërëm di remercier tamit Ibrahima Lo directeur du livre di ñu accompagner moom lu mu def li ci livre keneen defu ko euh, te di remercier tamit tous les euh, autres yi nga xam ne am nañu confiance ci Moussa Salamata